jërë ngeen jëf mbokki internet suñu actu tv ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay li gën fës ci xibaar yi dañ koy dooree ci recours bi nga xamante ni coalition takku wàllu Sénégal dañ nañ koy déposé foofule ci conseil constitutionnel ngir nag ñu daal di contester candidature njiitalu Pastef di Ousmane Sonko mi nga xamante ni moo nekk tête de liste nationale jëm nag ci élection législative participer gannaaw nag li ñeel mbirum justice bi nga Sonko jotoon na ko fi am ah, ci digganteeg moom ak Mame Mbaye Niang ba taxoon nag ñu daldi woon ko si ah, condamné moom njiitalu Pastef jëm ci mbirum diffamation ci ba taxoon nag moom Ousmane Sonko loolee waraloon rek ñu daldi koy séppi ci élection présidentielle yi nga xamante ni rek moo amoon na ci mois de mars atuma 2024 tax nag jamono jile coalition takku wàllu Sénégal ñoom nag ñoo ngay sàkku rek ah, ci juróom-ñaari sages yi nga xamante ni ñoo nekk ci conseil constitutionnel gàntal candidature Ousmane Sonko ci les élections législatives gannaaw kon moom mee ba tax nag maître Antoine Meng avocat à la cour nekk nag avocat bu coalition Takku Wallu moom nag dañ ne déposé boobule recours ci conseil constitutionnel ci ay kàddoom dañ ne xam liñ nag dañ ne yóbbaale bépp pièce boo xamante ni rek justifier moom Ousmane Sonko warul mën a bokk ci liste électorale doxale bile leen leen li jëm ci mbirum xibaar bokk na ci nag ci kaddu yi nga xamante ni kile di Abdou Karim Gueye ñu gën koo xamee ci engagement droit civique bi nga xamante ni rek dañ na koy am moom nag daal di yëkkati ay kaddu jëmale ko ci njiitalu Pastef mi di Ousmane Sonko ci ab conférence de presse bi mu doon amal moom Abdou Karim Gueye nag mu daal di fésal son mécontentement jëmale ko ci leader politique mi di Ousmane Sonko moom nag ci ay kaddu mu ngay xam leen rek kile di Ousmane Sonko respecté tegul yenn ci ay promesse yoo xamante ni rek daal di woon na ko def ci campagne électorale bile ba tax nag moo bile rek mu ngay daal di critiquer anam yi nga xamante ni rek jàpp na ni moom la Ousmane Sonko ba tax bu baax a baax bi nga xamante ni rek dañ lay xamle ni di leader bu Pastef di Ousmane Sonko ci nag loon ne nag nekk jamono jile premier ministre du Sénégal mu jàpp ni kon respecté wul ab promesse yi nga xamante ni rek moom la diglante woon ak askanu Sénégal ba tax nag moomee di Abdou Karim Gueye nekk leader du mouvement nitu dëgg moom mi lee rek mu ngay daal di critiquer ki lee di premier ministre di Ousmane Sonko ci boobule conférence de presse bi nga xamante ni rek daal di woon nañ ko amal